Africa Live Game di gunge les du Sénégal àndandook le ministre des sports monsieur Yankhoba Diattara ministre des sports monsieur Abdoulaye Sow ministre de l'urbanisme monsieur Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football m Cheikh Tidiane Seck président du Jaraaf monsieur Aliou Cissé sélectionneur national El Hadji Ousseynou Diouf double ballon d'or attention Wally Ballago Seck attention Viviane salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi temps yi téye naa réew mi de téye naa bës bi dëgg neexul de damaa gën a xew temps yi téye naa réew mi de ñu bëri ñu ngi may wonaan ma waxal ci tuubaa waxal ci Touba policier bi commissaire bi sortie bi commissaire bi sortie bu mu def moo baax sortie bu mu def baax na parce que safinatul amaan laa xam mën ku leen teg tuubaa kan moo leen fa teg kan moo leen teg Touba sëñ Muntaxa la wala am na ñu naan jiitu na sëriñ Muntaxa mais safinatul amaan tamit bëgg a yor seeni loi mais de Touba da nga fay wax rek ñu bëgg laa lekk bëgg lekkaale jumaa ji mais safinatul amaan daal commissaire bii li mu génn wax ñu bëri ji kontaan ànd ci moom Touba nag seeni loi bopp la ñu yore commissaire da ngay bëgg lu baax bañ lu bon yaa ngi dégg bëgg lu baax bañ lu bon boo demee ba mu arrangé wu la nga génn dëkk bi point loolooy Touba duma ci sori beneen cas bi ci tegu mooy Oumou Sow coow lu rëy li mu am li nu ko fenal demeewul noonu de tey dinaa live dinaa jël Oumou saw wala doomam mu ñëw leeral gis nga Ngoye Fall Oumou saw dafa bokkoon ci groupe bu Ngoye Fall daal di fay génn looloo leen metti nag génn ga mu fa génn ñu koy sosal naan dafa dem Italie dafa dem dafa sàcc keesu xaalis ba demee dem dem États-Unis daa ëmb defari ëmb ba États-Unis lu ne ñu ko koy sosal un cent lan ko mas a lebal ci xaalis te ban ko koy lebal umu soo nga fa ak euh, ak doomam ngoy faal ak ko jox maa ngi message yi maa ngi preuve yëpp nekkoo ko danga koy fay daa quatre mois avant mu ma trois jours quatre jours fay na lépp bàyyi leen sosol nit ak yàq der journaliste bi xaw ma journaliste xaw ma animatrice xaw ma yow yaay kan ndax journaliste yi léegi kenn jàngatu ko koo gis ça va kooku lépp xam li ma te jànguñu dara Oumou Sow nee na dina la teg si yoon te Oumou Sow bu ñëwee Sénégal dina leeral lu bëri dina dem confrontation dina ñëw ci Adamo dina ñëw fépp tey daal luy leer fii lay leere Touba moom du ma ci sori ndax dañuy wan na jumaa ji ba ci kanam.